kon noonu laa leen koy présenté li tax ñu cay wax nag mooy turu imam ba nga xam ne bii moom la gàccoo su dee loola la kon tudd na diine ji te diine ji moom mënuñ cee bañ a wax mu am euh, coow loo xam ne lii yëkkati woon na ko fi ci jàkka joo xam ne ji nee ñu ca la mu wax benn jigéen moo jóg ñu dem ubbi ko wax dëgg yàlla nii ma leen ko waxee muy waxi naq sa xandang noonu laa déggee vidéo ba muy wax ju leerut ba nga xamee ne dégg naa kàddu ya la ma ca dégg mooy daal mi ngi jiiñ ay LGBT maanaam ay góor jigéen yu dikk bëgg ubbi jàkka ja defar ko nangamati nangamati nangam loolu ba ma ko déggee fi laa di def benn vocal sama benn xarit ki nga xam ne moo ma ko yónnee woon ni ko na ngeen tey ci wax ji booba xamaguma lu xew ma ne ko ndax kii ngeen dégg muy wax moom jàpp naa ne ku ñu war a teey ci ay waxam la mu mel na ko dañuy dellu ci wa i jaakum faasiqum bi naba'in fatabayyanu xibaar daal bu la dikkalee ci waa ju ñu xaw a xeeb as mbiram danga cay dem leerlu ci loola yàggul am keneen ku dikk ni ma ma dégg ci beneen uh, vidéo benn audio ku wax ne dem nañ ba ci moom ya karna ni kooka mënees na koo wax insha allah danañ ko feeñal bu ci leneen bëggee urée leer bi ñu demee ci moom daanaka dafa dal wax wax ay waxi naq sa xandang euh, waxatu sax waxi LGBT leneen la doon wax ginnaaw ba ma dégg benn ma gis jigéen ji nga xam ne moom lañ ca tuddoon moom ci boppam it mu génn wax ba mu ca tamit wax la nga xam ne sababu demam ca jàkka ja moom la wax Euh, mooy jàkk yi dañ ko tëj lu yàgg ñett wala juróomi at euh, mu am décision ñu ubbi ko jullit ñu julli ca jàkk ja loolu moo war jàkk daal su fekkee ne mënuñu caa julli te ñàkk mën a julli ga dara indi ko lu dul béjoo boo xam ni moo dox ci diggante jullit ña la jaadu mooy ñu ñu raase jàkka ja mooy dëgg raase laa wax nag li may wax nag je bien mes mots def ko jàngukaay wala ñu def ko beneen ba bërëb boo xam ne utilité utilité publique lay doon ndax image yu tëj ga moo ñaaw ci lislaam ba nga xam ni kon defoon ko leneen mooy gën ñu tëj ko bàyyi ko noonu pourquoi parce que jigéen jullit ñi dañoo béjoo loola dañ ko war a supprimer dootul nekk ti jàkka su ko defee wax ji jeex ñu jàll ci leneen euh, waxu jàkka ji xaalis bi ciy dugg ak ma ni jàkkay senegal yi kuy bañ alal ju lewul dugg ci war nga xoolaat sa bop de war nga xoolaat sa bop diw joxe na fi 10 millions te diw momu xamoo ben xey ak gontu moko ko xamal diw joxe na fi 30 millions yoyu mo nek ci jakk yeb danaka amul exception alal yi dugg ci jakk yi dañ ko xam kenn xamuko ko su fekkee ne ña nga xam ne ñooy defar jàkka ja dañoo am étiquette bu ñëpp xam bu ñëpp xam nga xam ni wóor na ne ne jàkka ji ay diw sàngam diw mooma nangam lay def lu jiine ji jam ñu xam ko ci ñëpp yaatu su boobaa xëy na waaye jàkka yi li ciy dugg ci ay koppar <laughs> jàkka yelwaan la de jàkka yelwaan la kon wax jooju dégg naa keneen ku koy wax wax ja wérul wérul li wér daal mooy ki nga xam ni moom ñëpp xam nañ ne lu bon lay def lu xaraam lay def masalan ñu xam day jaay sàngara da koy jëfandikoo wala boog day jaay yaramam di ko di ko di ca fayiku xaalis xëy na ñu xam ko de notoriété publique su boobaa ñu ne ay ci téel sa yëf waaye lii dugg ci jàkka yi moom kenn mënu ko vérifier jàkka yi Sénégal la ñuy doxee doon wax nag moo dikk ginnaaw ba nga xam ni kon ay nit bu ñu jógee dugg ci biir internet am seeni xeexi bopp am seeni combat personnel bëgg amate nit ñi moo tax ndax xam gu ñu xam jamono ji ni mbirum góor jigéen soofe nit ñi ni ñu bëgg jaar foofa daal góor jigéen yi ñoo ñëw ubbi jàkka ja su ko defee nit ñi daal di wàcc bala ñuy vérifier jot faa def njëy ya def fa tooñ gu gu gu teguwul ci yoon loolu am na loo xam ni nit ñi wër nañ ko weesale seen bopp fii ñu toll ni tembe ku fi taxaw waxati dara ci biir trente minutes yi topp waxam wërees naa mën a xam loola muy wax ndax lu wér la wala wérul jullit nag loolu moo war a doon comportement am nag ba nga xamee ne koo koy wax moom day nekk koo xam ni kii maag moom ay yem ci wàllu wér nga xam ni ay waxam wérul ay jëfam wérul ku mel noonu bu ngeen ko déggatee bokk yi na ngeen ci teey bu baax vérifier ji ko soog a jóg bu leen kenn dugal ci ay foo komba bu leen kenn dugal ci ay combat personnel diine ji daal ak ngor gi ak réew mi ñu bokk wër naa tax kenn ku ci nekk buñ la wooyee nga jóg waaye bu weesoo loolu na ku nekk toog këram te sàmmuk njabootam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.